السلام عليكم ورحمة الله. ينن دي نيو نيب دي لن دي زيار ديجيتال شي نيو يوي اك زيار يوي مولانا الشيخ محمد الامين شيخ ابراهيم نياس ريبريزانتان خليفه بي في دكار nga xamne ci kërëm la waxon na ñew defé fi assemblée bi eh, di jaar ci buntam di tek ci loxom nuyo mu tégal آه، سيدي فا جوغي دي امام الاكبر امام شيخ احمد التجاني سيدي علي سيسي دي نوي بورتو بارول حضره ابراهيميه شيخ محمد الماحي سيدي علي دي نوي سوما بريزيدان ناسيونال شيخ محمد منحمنا شيخ ابراهيم نياس ولكن هذا waaw dañuy sant yàlla bu baax a baax rek di santaat yàlla di santaat yàlla xam nga nit ki buñ la joxe confiance mooy ne yow dañ laa sas fi mu nekk nii te tey jii li mu wane moom mooy ne nelaw amatul noppalu amatul ndax ku gis assamble bi ni nga xam ne moom la taalibe yi ñëwee tey uy si tey mën nañoo wax ne kenn desul ñoom ñëpp ñi dagg seen ité yëpp ñëw pour bugg a liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass la dafa am ñaari ñaari ñaari nit dañ ma mos wax wax yo xamne yuma neex la kenn ki Cheikh Mansour ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun la bés bima ñeke nek président ansaruddin mu oma 2018 nema da nga xamne poste bi yaay jeune bi ko njëkk amé ci yow lañuy doxé respecté ndaw ñi ci yow lañuy joxé yab ndaw ñi te yàlla bu ñu ndaw ñi ci yow te yaakar na ne ma ngi koy ñaané yàlla yalla yàlla yokku leeram heure bu nek dañ daan waxtaan di gisante ci yu bëree bëri keneen ki mooy Cheikh Mouhamad Kan di doomu yaa booy Seyda mu ne ma na nga xam ne njiit du dara bàyyi nee na njiit mooy ki nga xamante ni nit ñi lu ñu am ci lu baax euh, lu ñu am ci lu ñaaw sottile ko te xaaruñ ci yow lu dul lu baax kon ñun xam nañ li ñuy xaar mooy ne liggéey bu rëy mu ngi suñ kanam ndax damaa toog ci assemblée bi ma ne leen ñaanal leen ñi ñi fexe ba nga xam ne jumaa danañ ko fi am ak télévision loolu liggéey gënu koo rëy te du man maa koy def waaye mbooloo bii ñi fal ak mbooloo bi ñi fal ñun ñëpp ay jàpp mu baax suñu paree sëriñ bi ñaanal ñu yàlla sëriñ bi wax na ma ne lépp lu ngeen bëgg rek wax leen ma ko profité wu leen ci man maa ngi nii lu ngeen bëgg rek wax leen ma ko pare naa pour jàppale leen kon tey dama naan beneen sas bu bees lañ ñu jox te sas bi ku gis nu assemblée bi demee da nga xam ne sas bu bees la te xam xam naa bu baax ne ak équipe bi ma àndal ne dootu ñu maye ci dara na tàmbali di oo ñëpp nag ñi xam ne ansaaru diin bii mbiri Cheikh Ibrahim Niass la te ansaaru diin baay bi mu koy def di bindi leetar di defar biroom papa as mi ngi woon ci wetam am xam-xam lool matee ko lool it sëñ daama nga fa sëñ Cheikh a nga fa Cheikh Mouhamad Nadir Cheikh Mouhamadul Mahi waaye dafa jël Ousmane Cissé jox ko ko ne ko demal yow ak Ibrahima Thiam Gaynde euh, Aline Seck fi ñing pour wan nit ñi ne mbir bi mbiru taalibe la te tey tamit taalibe wan nañ mbir mi sunu mbir la kon nag mbir moomu sunu mbir la nañ leen jàpp am na lu des waaye nag damay faral di wax ne toujours bu fekkee ne benn waaye dama mos a dégg Cheikh Mahi mu ne dafa benn xale bu ñëw fekk baayam di jooy mu ne ko bàyyi looy jooy mu ne ko damaa yeewu fekk waa dëkk bi yëpp war seen naar wu góor yi dem bàyyi ma fi mu ne ko xay bàyyi looy jarut jooy am nga wu góor war ko nga jaar ci yoon biñ jaar buñ arrivé nga arrivé wala da leen dab ci yoon bi gannaaw nag ansaaru noonu la kon dafay baax ñun ñëpp ñu takkaayuwaat beneen takkaayu bu bees xam ne dakaar lañ nekk capital lañ nekk te mën nañ fee am lu nekk te buñ góorgóorloo nasawu yaakaar naa yàlla mën nañoo dimbale ba loolu yëpp ñu am ko. waaw assemblée bi niñ ko déroulé tey dama ciy santaat yàlla beneen yoon. équipe bu bees toujours bu ñëwee rek du nekku ne ñi fi ñëw ñoo cuune waaye am na ñoo xam ne am nañ xam-xam yu bees yoo xam ne mën nañ ñoo dimbale léegi-léegi nga dajeeg nit mu ne la man bëgg naa bokk ci ansaaru diin ndax am naa xalaat nangam ak nangam xalaat yooyu yëpp buñ ko dajalee ñun ñëpp mën nañoo liggéeyal xadara bi ndax li ma gën a kontaan loolu suñ sëriñ mu ngi nii Sayda Madiam bint euh, Cheikh Mouhamad Sidi Arabi di seti baay baay Alaaji Mor Zeynabu kon kooku bu ñëwee nekk suñ wet suñ sëriñ la waaye danañ xam ne ne sëriñ bi pare na moom ci pour jàppale wanteeg ñun kon yaakaar yaakaar gënta rëy lii yaakaar bu bees la élan bu bees la ndax jànkuwante nañ ñu yu bëree bëri di ko muñ di dem di dem ba yàlla jeexal na ko tey kon lu bees li nga xam ne moom lañ am danañ fasuwaat takkaayu liggéey defaat beneen bloc ànd liggéey jëmale suñ mbir yi ci kanam ndax duñ wax jëmale mbiri Cheikh Ibrahima Niass ndax mbiri Cheikh Ibrahima Niass mu ngi ci kanam ñun ñoo bëgg suñ mbir yi jëm ci kanam te taalibe yi wax dëgg yàlla am pare nañ pour jàppale wanteeg ñun pare nañ pour dimbale wanteeg ñun ndax tey bu fekkoon ne cent personnes mën nañoo dugg ci biro bi da gis cent personnes yu dugg ndax niñ liggéeyee wan nañ ñu ko kon nag ñi ngi ñaan yàlla départ bi ñu am tey yàlla nañ ko continuer di am ba ilaa yawmi diin tey ni place bi feesee bu ñuy oote réunion ni place bi mel noonu ñi xam ne bàyyi la ñuy liggéey liggéey luñ suñu bopp tey ñi ngi wax ci cotisation yi yi gis ngeen rapport yi niñ ko liiree nañ gën a góorgóorlu wallaay buñ góorgóorloo lu nekk mën nañ ko amal suñu bopp buñ xeeb 1000 francs par mois buñ xeeb 2000 francs par mois buñ xeeb 500 francs par mois lépp luñ ci def rek danañ gis ne danañ mën a liggéey ndax buñ taxawalee dégg ngeen li ñuy waa bureau national wax Dakar Kaolack Nioro buñ taxawee rek lépp mën naa taxaw kon nag nañ leen fexe taxaw jugee ci toog ak tëdd bi. gis naa tey mbooloo bi dañu ñëw ñu woote assemblée générale secteur yëpp nag yebal délégué mu ñëw est ah, macha allah yaakaar naa ne dana deme noonu parce que taalibe yi depuis sëriñ bi di fi jugee ñi xam ñoom ñooy kan xam ñoom ñooy lan xam nan lañ toll ci Dakar depuis boobu ba léegi dañoo volontaire pare pour liggéey ndax gis nga bari na ñoo xam ne ñi ngi wax pare incha allah rabbi. yaa euh, xam nga euh, Cheikh Aboubacar Cheikh Ibrahim Niass nit ñi xamul ñoom ñoo foog ne man ak moom ñaar lañ Cheikh Aboubacar man ak moom kenn lañ man naa am say dama jëm mii dana ci xam dara kooku su ma bàyyi mooy bàyyam moom mooy léppam man bu ma daan jàngi daara léegi-léegi moom ma yóbbu foog naa ñu ma bokkal di liggéey yëpp euh, MC ni mu ma xamee man xamee ko suma famille kenn xamee wu ko ñu ma bokkal di liggéey yëpp nag kooku sama mag la sama xarit la sama sëriñ la gis nga yaa ngi dégg mu ne la man bu Barham Seck dama koy félicité te ku ma yàgg dimbale nag te bu ma fi jógee bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lay njëkk a dem pour visiter ko ndax sama sëriñ la sama xarit la te nag élément la li mu leen wax fii élément la ku ko am am nga élément bu am doole te man xam naa ne sama xarit la loolu du problème MC Baye Niass lay liggéeyal lii mu def moom moo ko njëkk a def loolu gën a neex ñëw wàccee boppam wane ne man mi démocrate laa gis nga lii Eh, dama la ciy waxal rek benn affaire kenn dama koy wax sëñ Maaxi sëñ Maaxi ma ne ma dafa bugg liggéey na dem mais mbooloo mi mooy tànn ku mbooloomi mi tànn rek ci la ànd kon ku mel ni Baye Mbaye MC kooku kenn du ko bàyyi man de sama mag la moom la woon démb moom la bërki démb te moom lay nekk suba te wallahi bu fi nekkoon tey buñ ko faloon tey man may nekk jaamam bu muy jaar di dem sama kaw te moom noonu la def ñëpp kon kooku moom man maa koy njëkk a dem danaa ko danaa dem këram waaw adduna bi léegi jigéen ñi ñoo koy doxal adduna bi léegi jigéen ñi ñoo koy doxal bépp kuréel boo gis nga xam ne ne jigéen ñi bariwuñ ci rek bu yeboo dee ci jaaxle ñoom liñ mën man léegi-léegi danañ nekk ci ay ité yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom dama leen di gërëm léegi-léegi ñi nekk ci ay mbir ngay toog rek surtout nag ci seen njiit Adja Khady la mi day dajale lim dajale ba pare téye ko nga def ba pare mu ne la ah président ñun kat dajale woon nañ nangam dajale woon naan nangam mu ngi nii naka naka nga bëgg ñu defee ko wala mu ne defal naa la ci nangam ak nangam ak ñii moom bés bu set dama leen di gërëm ci njiital Adja Khady la parce que heure bu ma leen gisee rek sama xol dafay set te gis naa ci ñoo xam ne ci bureau bu bees bi ay liggéeykat lañ ay liggéeykat lañ waaw moo tax yaakaar bi ñu am ci biro bi danañ danañ ko liggéey ba nga xamante ni ñëpp danañ kontaan te bu yàlla defee ñu dem ci ziyaare bi danañ ow ñëpp ñi dem ba ci Serigne Mahi ñi présenté ko bureau bu bees bi ne ko bii mooy bureau ansaaru diin bu bees dañoo ñëw pour présenter la nga ñaanal ñi yàlla danañ dem ci imam danañ dem ci kilifa yëpp incha allahu rabbi képp ko yàlla man loo bu ñëwee ci ziar bi danañ ànd def loolu noonu ak muqaddam yi fi nekk ñu wax ko liggéey bi ñu bëgg waaye daal maa ngi gën a ñaax jigéen ñi ñi gën a góorgóorlu parce que ñii ñoom ku leen am sa ñun góor ñi buñ leen gisee suñu wet danañ góorgóorlu ndax ñoom ñooy gën a góorgóorlu kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax waaw na ko Cheikh Ibrahima tege mu doon loo xamante ne pour liggéeyal diine islam ñu gis organisation yi nekk ci biir réew ak bitim réew yow dafa am ay organisation yoo xam ne dañ leen jàppale que ça soit notre l'État wala mu doon ay organisation extérieure ban kanava euh, allah xam nga lu demee ni ansaaru diin benn récépissé la ñun département yëpp bureau national moo ñu couvrir ci biir bureau national ñoom lay état di jëflanteeg ñoom ñuy jëflanteeg ñun ci ni ñuy jëflanteeg ñun ñi ngi commencé di defar ay projet yoo xam ne laaj nañ ñu ko bu yàgg mën naa am Covid bi moom moo taxoon ba affaire bi euh, demul ni mu war a demee mais commencé waat nañ ko di def yenn financement yi mën naa am Dakar yegseeguñ ci te d'accord naag ñoom ndax am na financement yoo xam ne tey ku nekk Fongolimbi moo ko gën a soxla ki nekk Dakar te ki nekk ki nekk euh, Matam moo ko gën a soxla ki nekk Dakar te ki nekk Dakar mën na xëy am mille francs mën naa ki nekk foofu moom mënta am loolu kon bureau national ci côté boobu li ci war ñi ngi ciy liggéey ak état ñun li nga xam ne moom la ñu état wax ñi koy ñi koy wax toujours mooy comme rapport bi ñu présenté fi am na dossier boo xam ne dugaloon nañ ko ci ministère microfinance euh, de économie solidaire et solidarité ñi ngi koy topp génnagul waaye boobu moom dossier bi sori woon na kon loolu moom mooy li nga xam ne jëflante li dem ni nag ci état comme niñ wax sànq ci rapport d' activité bi président sax la wax suñu président moom mooy état bi ñu ak mom wax nañi dimbal yo xamna ni fasiyene nako jëflante ak hadra bi rawati na ñun ñu nekk ci Kër Baay. waaw ansaruddin amna dimension international mais lima ma nekk nekk nekk Dakar amna ño ñoo ñom ñoy sama kilifa sama kilifa yoy nekk ci kaw ñom ño am di liggéey ak wa international mais du tere nag am na ñenn ñoo xam ne ci international bi danañuy jëflanteeg suñ bureau national di jëflanteeg nag bureau dakaar misaal bi ma lay jox mooy ñu mel ni Mali Mali biñ defee sunu sunu xadara bi invitation xalifa bi dañ cee kontaan ba invité xalifa bi biñ invité xalifa bi ñoom Mali ñun la ñuy wax ci organisation bi xalifa bi war na dem Mali visite officielle le 27 janvier kon waa Mali ñi ngi wax ak ñun waaye nag lépp lu aju ci international ñun dañ koo bàyyee suñu kilifa ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi def relation extérieure boo xam ne dafay dem ci biir kon ci national la ñuy kii am na ay ay égyptiens yoo xam ne ñi ngi liggéey ak ñoom ci yenn yi nga xamante ni dafay aju ci mbiri jàng ak jàngale ba am na ay statut yoo xam ne dañu ci jàppale kon loolu lañ mën a toll waaye lu aju ci mbir mbir euh, international bi moom dañ ci bàyyi léegi ñu waaw loolu loolu loolu lu ko waral mooy ne ñun dama ciy gërëm Xalilu laa Seck Xalil daf ne ma communication prési il faut dafa am nuñ koy téye ñi dem téye ko naka wàccal sunu bopp ci terrain bi. dem ba nga xam ne nii patron de presse yëpp ñun ñoo jokkool ak ñoom suñu bopp patron de presse boo ci toogal wax ko li aju ci biir ndekete ñun ñoo fëggatoon bunt yi ñoom ñu ngi ne woon géej di ñu xaar man ci visite xalifa bii laa ko xamee ndax gis nga communication bi li muy jàll jàll jàll waroon nañ cee fay fekkee ne cent lañ ci waroon a fay mën nañoo wax ne cinquante lañ ci fay te yu ci bëri ñenn ñi ñu ci jàppale la ak yenn patron de presse am na patron de presse yoo xam ne ñoo indi seen seen seen seen média am na ñoo xam ne am na ñu ñu ci jàppale ku mel ni président Abdoulaye Mountakha kooku moom lépp lu ma nekk def ci nekk ak man kooku sama xarit la sama sama sama lépp la wax dëgg am sun ñaari bàyyi ay xarit lañ woon waaye ñun ñaar tamit ay xarit la mu ne ma président lépp loo nekk ñu ngi waaw ah média xadara bi média xadara bi média xadara bi moom ñun ñun ñun suñu premier objectif mooy ñoom la ñuy ngi gërëm nag bu baax assemblée bi yëpp maa ngi tamit ndokkeel bureau bu bees bii nii yëpp ku ci nekk ci ñun rek dañ laa jox responsabilité nañ ko liggéey xalaat buñ ci am rek nañ lañ ko indi ñu partagé ko parce que ñi ñuy dénk sax ñoo ñu gën a man yëf waaye dañ ñoo bëgg dimbale mën naa am bëgguñoo dimbale moo tax ñu jox ñu ko kon nak ndimbal boobu ndimbal na ca fekk lo xol borom ma ngi sant ñep di gërëm ñep di gërëm wa bureau national yi fi ñëwoon ci seen liggéey bu rafet ak seen dal biñ àndal wax deug yàlla tay buñ nekkuton ay nit ñu dal li duñ mëna tok ba heure bi diko wax waye ñi ngi leen di sant di leen di gërëm alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah joxal ajaam ma jëm joxal léegi seen communication bi ñoo ñëw taxaw seen communication waaw ci commune waaw ana commission

assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu maa ngi tudd soxna Madiame Niass eh, maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam

ajouté si Ansaaru nii muy communication digitale te communication bi nga xam ne moo fi nekkoon naka communication bi fi nekkoon ak yow mi nga xam ne moom lañ jàpp communication digitale naka nga war a taxawee sur Ansaaru naka comme ku ku gis àddina bi ni muy doxee gis na né internet instant yi ni c'est incontournable amna na doole boo xam ne tey jii da ngay wax fi ni tok par exemple Dakar wax euh bala mo def 24 heures wax bobu wër aduna donc média bu mel nonu ken waru ko mën négliger ba tax na ñu ngi sant yàlla di rafetlu liggéey bi nga xam ne tey la commission communication def ci at yi passé euh, liggéey boobu euh, communication digitale bi du nekk lu une continuité par rapport à ça wala da koy gën renforcer inshallah donc euh, ñu ngi ñaan di o mboole mbokki taalibe yi ñu ñëw jàpp ci liggéey boobu nga xam ne dinañ mën sukkandiku ci média wu xadara bi bien sûr ak groupe de presse yi nga xamné am sur le plan national et international parce que mbiri c'est sur le plan international donc ñun ñëpp ñuy and liguey pour liguey bi jëm kanam inshallah merci. waaw mu nekkoon assemblée générale jamiyatu Ansar, diin département bu Dakar ñu don amal xaar le Seyda Seyda ñu. Euh, ñu jël euh, membre yi nga xam ne ñoo bokk ci communi euh, commission communication waa commission féminine bu grand boo présenté woo nga wax ñu ban kii ndomba tàkk lañ la tàbb ci Ansar. alhamdulilah salaatu wa salaam ala rasulillah Seydina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. maa ngi tudd Oumou Jiré Ndiaye maa ngi nekk vice présidente Ansar Dine maa ngi kontaan loolu aussi ci fal bi nga xam ne nii fal nañu mani maa ngi Umu Umu Jire Ndiaye maa ngi nekk vice présidente Ansaroudine maa ngi kontaan loolu aussi ci ànd bi ñuy ànd ak Baram sek pour liggéeyandoo ak moom pour jëm kanam. Euh, yow yéen ban commission nga xam ne ñu si Ansaroudine ak ban taxawaay nga am si nga xam ne def nañ assemblée man déjà dama ci bokkoon rek comme mais ci réunion bi ni ci lañ ma tab ma nek vice présidente di liggéeyandoog baram Seck donc loolu tamit nek na manam contentement bu reuy ci ñun nek na tamit lu lu lu lu am solo ci ñun parce que amul lu gëna reuy rëy Cheikh ibrahim amul lu gëna reuy ci ñun loolu. Assalamualaikum boo présenté maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah te sant yàlla beneen yoon ci dool liñ ko doon sant di wax ne man maay man lañ joxaat présidente des femmes ci département Dakar yàlla def na maa ko yoroon macha allah euh, liggéey nañ fi liggéey bu rafet bu mucc ayib wax dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla biñ ne dañ koy taxawalaat it wax dëgg yàlla kenn xëccoowu koog man dañ ne ma yaa koy yorewaat kon loolu dama ciy sant yàlla bu baax ndax liggéeyal Cheikh Ibrahima rek la liggéeyal Cheikh Ibrahima nag duwu ne togg ak yekk rek la ndaxte ñi ngi nekkoon ci ay formation ñi ngi nekk ci yeneen activité yoo xamante ne ñi ñi ngi ci nekkoon di ci waxtaan ba yàlla dogal lii kon yaakaar naa dinañ mën a am euh, kattan ak mën-mën ak doole buñ ko mën a continuer ba fi ñu bëgg Ansaarud-Din yegg fa ñun jigéen ñi ñu am ci part de responsabilité boo xamante ne dañ naan lii jigéen ñi ñoo ko fi ñu ngi koy ñaan yàlla yal nañ ci yàlla jàppale di gërëm nag mbooloo mi yëpp ndaxte xawoon naa métti trop waaye macha allah sant yàlla Baye defar na lépp ndaxte kenn falu sa bopp kenn falu fi sa bopp lépp mbirum Baye la moom mooy seet ku ko neex mu jiital ko man loolu laa gëm moo seet ki ko neex mu joxaat ko li mu ko jox ki mu ko ko amutoon nga ñëw am ci post yi kon loolu Baye la kon képp koo xamante ne kii am nga ci post rek ñu ngi lay lépp loo ci man rek ci taxaw ci ak am ci itte rek na ko ci def ba def ci lu kawe njortu ñi la ko jox liñ foog ci yow kon ñu ngi sant yàlla di waxaat alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah allah ñu sant di gërëmal ba am ñu soon ci fii ci